kontaan ci euh, teew fii ci waxtu wi soit d'info di leen di nuyu bu baax a baax te leen di ziar ni ñu koy defee saa su nekk ci waxtu bi ñu teew fi euh, waxtaanee actualité di continuer ba tey des ci li nga xamante ne mooy euh, feebar bi di coronavirus waaye bi lay yoon tey dañuy taxaw ci initiative yoo xamante ne gis nañ ne bëri na waaye benn boo xamante ne am na solo tey ñu taxaw ci mu di initiative de cent mille étudiants yoo xamante ne dañoo taxaw rek lépp lu leen tax a jóg mooy fexe xeex feebar bile kii coordonnatrice bi di professeur Mampenda Ba jógee ca université euh, Gaston Berger bu Saint-Louis wala di fa jàngale loolu laa war a wax. Hmm. mais pas jógee foofu professeur dala jàmm si merci beaucoup jërëjëf dinañ ñëwaat euh, si moom euh, si kanam xibaar yi ci rédaction bi wolof ak français dina fi teew ñaareelu pàcc bi ñu jagleel ko avocat bi di Reed Brody nga xamante ne ràññee nañ ko ci taxawam euh, ci fexe procès Hissène Habré am ndax ñii di victime yi daal ci mën a gis seen bopp waaye gis nañ ne Hissène Habré moomee jamono ji mi nga ca Wakaam ca këram en résidence surveillée du ñàkk dinañ ci teew ci kanam xool ni nga xamante ne moom la jàngatee loolu ñu daal di koy teewlu bu ko defee ñu gën a yaatal ci pàcc boobu na ma ko waxee sànq ñu njëkkee ci euh, initiative bi nga xamante ne ni euh, madame euh, Penda Ba yaa ko jiite di wax ci li nga xamante ne rek mooy cent mille étudiants yoo xamante ne leen tax a jóg mooy xeex feebar bi la initiative boobu kañ ngeen ko taxawal ak it lan ngeen ci nam Euh, merci beaucoup madame euh, initiative bi en fait euh, mbooloo mu université Sénégal te juróom ñett lañu huit universités publiques yëpp. Mm. ñoom ñoo euh, booloo ànd di réfléchir ci nan la d'une manière générale nan la lan moo war a nekk taxawaayu université devant la maladie. donc li ñuy liggéey am na ay pàcc yu bare. Euh, xam naa dinañ wax dinañ dellusiwaat peut-être waxtaan ci yeneen pàcc yi mais bii benn la ci boo xam ne vraiment c'est au cœur du dispositif bi dafa nekk lu lu lu am solo te am maanaa am importance parce que dañu bëgg mm. képp kuy étudiante wala ngay étudiant. Euh, inscrire ci benn université ci yooyu ma lim huit universités yi wala sax université privée nga ñëw euh, bokk ci xeex bi contre coronavirus mm-hmm. moom la ñu tuddee euh, programme cent mille étudiants contre le coronavirus même si au Sénégal on a à peu près cent cinquante étudiants bëgg nañu daal lu ëpp la l'écrasante majorité ñëw ñëw bokk ci xeex bi. alors naka lañ ci bokkee. xeex bi pour bokk ci simple na na loolu dañu créer benn plateforme mu tuddee que 3w point étudiants. avec S contre C19.sn étudiants yi ñoom miin nañu ay ay site internet. Mhm. ñoom ñëpp xam nañ ko donc li ñu leen di ñaan mooy ñu dem ci plateforme boobu noonu www.étudiants-contre-c19.sn bu ñu demee information yëpp ña nga fa euh, li ñu bëgg daal mooy euh, taxawaayu université. en particulier taxawaayu étudiant nekk lu am solo te loolu ñu ngi koy woowee service à la communauté loolu bu weesoo jàng gi ñuy jàng ak recherche bi ñuy def dañu bëgg sénégalais bu nekk ak communauté bu nekk gis sa bopp ci université yi parce que université publique boo waxee publique mooy loo xam ni état bi moo koy financé te xam ngeen ni état ay impôt lay lay lay lay doxee te impôt yooyu noonu nit ñi ñoo koy ñoo koy dagale di ko jox état bi mm. moo xam moom daal université université askan wi la dañu bëgg aussi non bañ nekk rek di jox nit ñi ay bourse ak di tabax ay chambre te bu nekk ngeen gis ministre bu jàll wax loolu noonu dolli ñi ngi tabax université yu bees di defar ay ISEP ak yu mel noonu dañu bëgg nag bu heure delloo jotee étudiants yi taxaw taxaw gu mat sëkk ñoom tamit delloo euh, askan wi parce que ñun askan wi moo ñu fi moo ñu fi teg pour ñuy liggéey loolu noonu étudiants yi askan wi moo leen yore dañu bëgg bu bu bu métit yu mel ni amee wala soxla wala lu mu mënti doon rek étudiants yi aussi taxaw delloo askan wi te loolu mën nañ ko parce que euh, euh, moom la leen di jàngal ci biir université ngeen ko ubbeeg léegi ñaata inscrit ngeen si am. plateforme bi tey ji lañ ko ubbi en réalité. démb rek la ñu lancé la ñu lancé initiative bi mais man j'ai diggante démb ak tey rek ñëpp ngi laajte nan la ñuy def pour accéder ci euh, bu ñu demee information yëpp mi ngi foofu noonu am na ay vidéo yu expliqué euh, euh, ni ñu mën def am na ay dañu leen regroupé en en ci ay groupes yu bare. am na groupe santé groupe hygiène groupe communication groupe religion bu ci nekk bu am na coordonnateur léegi par exemple groupe hygiène ñoom mooy ñiy defar gel hydroalcoolique pardon hydro alcoolique yi ngeen doon wax dañu bëgg defar di ñuy woowee ay kit hygiène nga xam ne dafay nekk gel bi nekk saabu nekk eau de javel ñu jébal ko ménage bu nekk Sénégal loolu université bëgg nañ ci liggéey ñu ngi réfléchir bu baax aussi ci masque yi parce que xëy na foofu la ñu jëm aussi nan la ñuy def parce que am nañu ay ingénieurs yu xarañ nan la ñuy def ba defar ay masques yu yu yu yu yu yu am solo yu efficace euh, ñu séddal yu jox ko aussi askan wi euh, am nañu observatoire mais étudiants yi moom li ñu bëgg dëgg dëgg ñu taxaw ci mooy travail de sensibilisation et de prévention sensibilisation ku ko wax instant bi nii ñëpp dañ ciy jàpp ndax euh, mhm. ci euh, feebar bi moo ko laaj mais dañu nekk ci contexte boo xamante ne ni euh, dañuy tere rassemblement tere nit ñi di booloo mhm. boo dajee cent mille étudiants Euh, ñu war a def ay actions. Mhm. sur le terrain naka lay demee. Euh, en réalité euh, décision bi président de la République jël ni dañuy toj université yi euh, c'est une très heureuse et, et euh, décision. ci wàllu ci c'est décision bu bu bu bu am solo la parce que xale yi ñibbi nañu. Mhm. am na étrangers yi rek ñoo dekk nekk ci campus yi mais xale yi ñibbi nañu mooy xale yi tasaaroo nañu Sénégal ñu ngi donc ci kër gu nekk. te loolu nag foofu la affaire bi di amee njëriñ ñu ngi ci kër gu nekk ñu ngi ci gox gu nekk te ñu ngi làkk itam làkk gu nekk ñu dégg am nañu étudiant balante am na ñu mandeng am na ñu mankañ am na ñu joola am na ñu séeréer am nañu pulaar wolof lépp donc ñun li ñu bëgg mooy ku nekk fa nga nekk nga defa fa liggéey ba mhm. bu sant ñu benn étudiant wala ñu néew ci ñoom la ñuy sant ñu génn te ñooñu mooy nekk les étudiants en médecine nga xam ne xam nañu nan la ñuy protéger woo bu baax mais ñeneen ñi li ñu leen di ñaan li ñu leen li ñu bëgg ñu def ko mooy ci seen ci seen biir kër ak ci seen dëkkin bu jege kese ñu def fa travail de de prévention bi def autosurveillance xool boo yëgee sa yaram dara nan nga war comporté woo à quel moment nga war woo le 15 wala nga war woo numéro vert bi. Euh, et cetera donc préven liggéey bi en fait ci biir kër yi la ku ci nekk sa responsabilité mooy sa sa communauté très très proche en réalité sa famille ak sa koñ disons maximum sa koñ. mooy gën a neex a waxal ndax bu ñu leen miinee xëy na dinañ leen dinañ leen déglu mais euh, kooku di dem tamit di waxtaan ak nit yi dina laaj yenn saay mu mu protéger wu moo xam masque la wala yeneen fan lañ koy jëlee euh, en réalité euh, dem bi dem bi sax dem bi bëgguñu ñu dem lu sore te te gis nga plateforme bi étudiant bu ci dugg danga nga war choisir décider que da nga bëgg nekk étudiant euh, euh, bénévole au mm-hmm. service du COUS. COUS xam ngeen que mooy centre des opérations d'urgence sanitaire. en réalité étudiants yi dañuy dañuy liggéeyal euh, ministère de la santé léegi COUS moo ñu jox charte yeeg étape yeeg lépp lu mu mënti doon liggéey bu mu mënti doon dañ ko teg ci ay charte étudiants yi dañuy lire charte bi approuver que wax ni dañu respecter li ñu leen sant ñu soogee def liggéey bi mais liggéey bi li ci ëpp waxtaan la ci sa biir kër ak bu ñu naree génn mooy moo tax ñu commencé di liggéey ci affaire masque bi mais pour l'instant sant gu ñu kenn nga génn parce que waxuma sax yow sa bopp mais li ñëpp war moytu mooy mooy mooy exposer keneen ki en réalité donc sant gu leen ñu génn li ñu bëgg mooy pour l'instant ñu nekk ci réseaux sociaux yi par exemple di relayer information bi di expliquer seen dëkkandoo yu jege geste barrière yeeg yu mel noonu te bu ñu gisee lu leen jaaxal rek ñu xam ban numéro lañu war a woo est-ce que dañuy dem waxtaan ak infirmier bi nekk ci district de santé bi wala euh, yu mel noonu mais info yi ñu war def yëpp daal tënk nañ ko ci ci plateforme dafa am diir boo xamante ne dangeen ko fixé le temps ngeen di rassembler le maximum de personne wala euh, tey bu ngeen ko ubbee nii bu ngeen xëyee suba ak lu ngeen mënta am mun ngeen door liggéey bi. liggéey bi door na ba pare. liggéey bi doon na ba pare bu sa kanamee tuuti di ngeen gis benn benn vidéo buy lancer euh, initiative bi officiellement mm. vidéo boobu noonu ay étudiants yu nekk UGB section communication ñoo ko def mais bi ñu koy def yëpp ak tournage bi ñu ngi garder distance de sécurité yi ñu ngi respecté déjà lool noonu ñooñu ay étudiants yi loo xam ni commencé nañu déjà liggéey bi am nañu ay étudiants yu nekk ci section religion yooyu ñoom tamit ñu ngi ñu ngi liggéey ñu ñun daal li ñu bëgg mooy yaatal ka ñëpp yëkk di ci liggéey mais bu ñu amee benn ba bu ñu amee cent cinquante mille yi ñuy wut yëpp dañuy liggéey mm-hmm. te te xale yi aussi euh, loolu c'est c'est extrêmement important de le commencé nañu déjà mobiliser wu fortement parce que lii ci li ko gën a indi bokk na ci xale yi di ñu saisir ñun ñi di ñu woo man man man mi personnellement ay euh, waa coordination UGB woo nañ ma naan ñu professeur lan la ñu mën def ñun am nañu ay idée am nañu nous sommes volontaires nous avons envie de faire quelque chose mm. pour notre nation mais nan lañ koy defee ak nan lañ koy organiser donc xale yi pare nañu ñun dañoo doon nekkoon ci gannaaw nag di liggéey ci plateforme bi recteurs yi di waxtaan ak ministère ak yu mel noonu mais léegi alhamdulilah lépp sotti na liggéey bi rek moo ci des léegi nee nga sànq professeur euh, étudiants yi tas nañu jamono ji ci réew mi mhm. ndax bi ñu tëjee université léegi diir la euh, waaye euh, dina am gox yoo xamante ne ni internet du fa demee noonu. Euh, wala am accessibilité ci yenn xibaar yi du du demee noonu naka ngeen di def si zone yooyu ba ñoo ñit seen liggéey ñu ñu facilité. Euh, dëgg la université bu nekk am nga sa base de données wu am nga adresse mailu étudiant bu nekk am nga itam téléphone étudiant bu nekk léegi ñooñu ay SMS lañ leen di yónnee euh, xam nga bi bi maladie bi dooree daan nañu jot ay message yu ministère de la santé euh, léegi yu mel noonu la ñuy def rek jéem leen jot mais boobu mooy gën naqadi Euh, dina dina xaw gën a métti tuuti mais mais mais ñi ngi koy jéem a jaarale ci ay texto kese parce que effectivement du coup suñu couverture internet elle n'est pas universelle du ñëpp ci mën jot ñëpp am crédit sax pour def liggéey bi mais mais mais on espère que ñooñu daal ñu jëm wut ay alternatives pour xool nan lañ leen di di jotee. liggéey si réseaux sociaux yi nga wax te ko wax réseaux sociaux yi yenn saa yi fake news am ci doole loolu. Mhm. la bonne info pour joxe ko. absolument euh, euh étudiants yi nekk groupe communication ñun ñoom loolu rek mooy seen liggéey lutter contre les rumeurs mais lutter contre les rumeurs mooy xeex euh, information yu yu yu yu yu justul yi mm-hmm. loolu il faut d'abord les remonter il faut que ñu ne ñu ah en ce moment euh, man man am na dégg naa léegi léegi nii ku ma ni masque yi baaxul parce que masque boo ko risque boo koy boo ko boo ko kiiwee boo koy utiliser bu yàggee day am effet secondaire da ngay am problème poumon ay années après tey ji laa ko soogee hmm. dégg dafa mel ne bés bu nekk rek ak expert bu bees buy créer benn affaire bu bees loolu foog ñu teel nga xam dafa baax parce que dañ koy remonter rapidement ministère de la santé ñoom nga xam ne ay médecins lañu ñu wax ñu ci rapidement euh, lan mooy la bonne information ñu relayer ko ñun ñi nii donc ñoom seen liggéey mooy loolu nekk fu nekk ñu dugg fa lu nekk ñu liir mm. ko lu leen jaaxal rek ñu jox ñu ko comme ça ñu ñu xam nan la ñuy répondre euh, ci ci ci rumeur yooyu mais loolu c'est un aspect extrêmement important ci xale yi liggéey bi ñu war def. alors nee nga euh, da ngeen di liggéey kon ak ministère ce qui veut dire kon lu ngeen di joxe fa lay jóge ministère de la santé absolument très bien leneen loo xamante ni am na solo tëj nañu euh, université yi. Mm. jamono ji certes ñi ñaa ngi jàpp. ci yenn ci étudiants yi bokk ñu bokkagum ci plateforme boobu ci mm-hmm. liggéey bi ngeen di def mm-hmm. mais euh, cours yi dafa arrêté mm-hmm. ñooñu tamit à côté de loolu nga xamante ne ñu ngi koy def seen occupation lan lay doon pour fexe tey la ñu jàng ñu bañ ko mu ñàkk ah. naam bu dee ñu ngi toog ci période boo xamante ne nii daf leen ko digal ndax euh, ñëpp ñoo nekk ci mesure yu ñu yu ñu yu ñu édicté mais dina baax ñu xam it ñooñu yéen nan ngeen di def pour jàpp leen ba la ñu jàngit ñoom ñu bañ ko perdre euh, suba incha allah muy le 8 je sais que les huit recteurs des universités publiques am nañu réunion et je pense que ci point yi ñuy discuter bokk na ci loolu la ñuy woowee téléenseignement. Hmm. bu loolu moom université bi ci ëpp chance mooy UVS université virtuelle du Sénégal moo tax anticiper. ci sa société dafa nekk lu am solo. Mm-hmm. UVS c'est la deuxième plus grande université du Sénégal en en terme en nombre d'étudiants ils ont plus de trente cinq mille étudiants ñoom li c'était ça le, le principe da ngay toog sa kër euh, ay capsule vidéo di la fa fekk après enseignants yi di waxtaan ak yow par ci ay plateformes. pour di di di ak ay énog yu yu mel noonu donc ñoom déjà UVS ak trente cinq mille étudiants ñoom bokkuñu ci léegi yeneen étudiants yi yi nekk par exemple UGB. UCAD di Thiès Ziguinchor loolu je sais que waxtaan am na parce que man directrice adjointe laa ci sama faculté je sais que euh, suñu recteur initié na benn discussion pour xool nan la ñuy def ba continuer di di di jàngal xale yi léegi euh, am ñu su qu'on appelle ay IFOWAD mooy institut de formation. Euh, à distance il faut wàaj yi ak centre de calcul yi ñu ngi xool nan lañuy ñuy defalee ñun ku nekk ay classe virtuelle xale yi mën mën ñëw inscrire mais mooy problème bi am rek mooy li nga doon wax léegi connexion bi ñu nekk ñu bari sax daal ñu mën nekk ci ci connexion bi mais ñeneen ñi te xam nga université c'est sur la base de de l'équité et de l'égalité donc doo mën di jàngal ñii di di bàyyi ñii loolu daal la jëm xool nan lañ koy régler mais mais mais lu lu urgent la lu important la et je sais que UVS d'ailleurs mi ngi dimbale yeneen universités yi pour wutal leen ay plateformes de télétravail et de téléenseignement est-ce que euh, initiative bii nii professeurs yi it dinañu euh, wàcc sur le terrain parce que étudiants yi nga wax ñoom ñoo signalé wax ne mm. dañu bëgg a jàpp liggéey mm. naam bu dee yéen a ngi leen ndax yéen it di ngeen bokk ci liggéey boobu man de personnellement maa ngi sensibiliser suñu waa kër ak suñu <laughs> waa koñ euh, euh, non non très sérieusement euh, je pense que euh, euh, universitaire et je sais même pas seulement parce que université ñetti pàcc la du du du enseignant ak étudiant kese am na aussi le personnel administratif technique et de service oui. je pense que communauté universitaire boobu ñoom ñëpp ñëpp motivé wu te engagé wu je sais que sama collègue yi parce que lii nii yëpp ay ñi ñi koy liggéey ñi ngi ci sama ginnaaw mm-hmm. en réalité mais ñi ngi fi ñëpp ñëpp a engagé wu ku nekk yaa ngi xool ci sa secteur gis mais li li ci ëpp nag duñ ko gis mais mais c'est toute une communauté qui s'est mise au service de sa nation et je ñoom ñëpp ñi ngi ginnaaw ministère de la santé parce que xeex bi foofu foofu la war amee donc ñi ngi ci ay comités yu bare euh, je pense que le directeur général de la recherche et de l'innovation dina def plateau plateau mm. euh, pour expliquer euh, observatoire bi ñu mettre en place on a mis en place un observatoire boo xam ne dafa am li ñu woowee ay task force task force bu am na yu bëri am na économie parce que bu crise bi du crise sanitaire kese mm. ñi ngi euh, économistes yi te la plupart d'entre eux des universitaires ñi ngi xool affaire bi nan lañ koy gérer tey jii ak suba pour que bu ñu génnee ci feebar bi ñu bañ daanu ci crise économique bu metti am na modélisateur yi congélateur artificiel yi gis ngeen li waa ESP euh, e di def ci gel hydroalcoolique waa Ziguinchor aussi ñi ngi def la mm-hmm. même chose donc initiative yi dafa bare c'est que communication bi xëy na moo des mais je pense que amul kenn muy père di pats di étudiant koo xam ne actuellement toog nga te amoo envie engagé wu. lu mel nii lan moo tax duñ ci faral di gis la communauté universitaire parce que euh, euh, souvent mm-hmm. ma sañ ko wax bu ñu gisee ci média yi bu ñu nekkul ay ñaxtu. ci syndicaliste yi mu nekk ay étudiants génn ci mbedd bi euh, di di di di ñaxtu loo xamante ne xëy na seen droit la. Mhm. mais euh, lu lu lu gën a négatif bokk souvent la ñuy mettre en avant ci ci université te lii euh, naam bu dee lu yees la lan moo tax duñ leen di faral gis ci initiative yu mel nii. Mm, en réalité il y a deux choses am na un nombre extrêmement important euh, d'enseignants chercheurs. qui sont engagés dans les activités sociales communautaires à la base mais duñ ko wax wala wala du feeñ télé wala du ko wax rajo mais universitaires yi traditionnellement c'est des gens qui sont qui sont engagés il faut se rappeler aussi histoire de l'université et université c'est c'est surtout université de Dakar c'est une université qui a toujours été de gauche donc affaire démocratie affaire u euh, jàmm euh, dimbali population yi dafa ça a toujours été au cœur de sa mission te nit ñi ñi ngi ko doon def léegi effectivement euh, dans ce qu'on retient euh, euh, euh je pense que yéen ñëpp dégg Sénégal ak nit ci étudiants et enseignants ñëpp engagé woon ak yu mel noonu donc histoire université xëy na tey tey rek la xaw a ñagas xaw a xaw am am lu ci tax mais pendant longtemps et je pense pour toujours ñun nous sommes des gens qui sont au service de de de, la nation léegi li nga wax aussi dëgg la effectivement malheureusement bu ñu déggee li ci ëpp mooy euh, suñu syndicat yi ñu ngi ci biti wala xale yi ñu ngi tos ay bus ak yu yu mel noonu euh, loolu li ko waral mooy rek ñàkk nekk ci conditions yi satisfaisantes mais mais je pense que le Covid-19 bi c'est l'occasion de réconcilier le l'université et sa société mm-hmm. te ci loolu la ñuy dox parce que parce que loolu ni leen mettee la la tiise si ñun aussi bu doon suñu sago ngeen ngeen gis ni suñu volonté mooy Euh, toujours effectivement di jëmale dëkk bi kanam nekk problème bu nekk problème mu askan bi ñu taxaw ci solution yi nekk des solutions endogènes et des solutions locales loolu mooy suñu mission et je pense que ñu ngi ci ñu ngi ciy góor. et euh, en terme d'appui est-ce que ministère dafa am lu mu leen di euh, jàppale moo xam si si ay gel la wala yeneen wala lépp yéen à votre niveau ci li ngeen di xalaat ak li nga xamante ne moom ngeen di liggéey moom ngeen di sukkandiku pour jàppale askan bi. Pour l'instant, euh, nous avons le, le, le, le, soutien total de notre ministère. ñun euh, dañu am ay fonds de recherche supérieur. enseignement supérieur waaw ouais. euh, le professeur Anne euh, nous avons son son soutien euh, man j'étais en contact avec la la CT la CT1 la la la la euh, sa conseillère technique qui soutient effectivement le le Euh, conseillère technique euh, <laughs> numéro un bu bu bu bu ministre. Euh, Cheikh Oumar Anne donc lii nii yëpp bu ma ñemee taxaw di wax di engagé huit universités publiques yi c'est parce que le ministre est au courant et le ministre approuve le programme c'est parce que toutes les. toutes les universités et, le, et le, les autorités en fait les recteurs sont au courant et approuvent le, programme dimbal gi prend plusieurs formes euh, dina à on aura besoin d'un soutien financier loolu c'est déjà là le soutien politique qui est important et le soutien institutionnel nous l'avons aussi mais je dois dire aussi que initiative intéressant mooy secteur privé dugal na ci loxoom déjà mm-hmm. actuellement activité yu ñuy mën a nii yëpp euh, ki koy la fondation euh, de la BOA la Banque of Africa ñoom ils ont dit que euh, dañu bëgg am action yu yu yu yu yu diversifiée te xam nañu prévention ak sensibilisation c'est extrêmement important ñu wóolu université yi di ñu ci jàppale et ça c'est quelque ñaata la parce que neer nga loolu noonu l'aspect financier. aspect en budget budget global. waaw programme bi. Euh, bare na barewul parce que bénévolat bi daf ci daf ci daf ci bare en fait. bu ñu waxee xaalis moom am na ñu bëri bëgg ñuy wax xaalis xaalis bi ñaata ngeen amagum ko. actuellement xaalis bi 10 million kese la ñuy fonctionner te 10 millions yu ñu am yëpp. Euh, fondation euh, Bank of Africa moo ñu ko jox euh, le le le budget a été viré sur le compte de l'université Gaston Berger suñu agent comptable moo koy gérer. Mm. Euh, mais encore une fois loolu c'est juste une partie qui va gérer les questions de communication mooy spot vidéo yi ñuy defar ak yu mel noonu li ci xal étudiants yi ñu ngi def aussi seen seen benn téléthon ñoom seen bopp ak seen bourse yi ni mu ni mu néewee ñu ngi collecte xaalis de ko teg de xam nga ne SAES aussi def na ay ay mm. li ci des nag université yi moom la ñuy jël dix millions yi jeexee lépp luy dépense université yi ñoo koy jël sachant que université yi euh, mettre nañu à disposition encore une fois seen seen personnel seen ak toutes les ressources yu nekk à leur disposition. seen agent comptable UGB mooy gérer may dina baax nit yi xam ne bu ngeen mobiliser xaalis fan la jaari te pour mu dalal xelu nit yi. loolu moom moom après dinaa wax su suñu AC euh, Abdoulaye Ndao qui est un agent du du du trésor du ministère des des finances euh, euh, mu c' est c' est ça va être extrêmement extrêmement transparent parce que lii ku ci ku ci dolliwul doo ci doo ci doo ci doo ci wàññi lu te te xaalis bi sax néew na néew goo xam ne xam naa dépense gi lu gaaw lay nekk mais mais une totale transparence et surtout li ci gën a neex mooy am nañu engagement wu recteur yi que ñoom ñu dugal jël ci seen xaalis budget mm. parce que lii c'est de la recherche et c'est du service à la communauté pour sax mottali bu fekkee bu fekkee loolu doyul mais côté côté gestion bi moom moom moom moom euh, vraiment à 100 pour cent nous avons maintenant un système comptable qui est extrêmement transparent euh, lépp lu ñuy def ci ay banques donc lay lay jaar si ay traces su chèque ak ay virement donc loolu moom euh, na ci xel yëpp dal vraiment leneen leneen loo xamante ne bëgg naa encore nga nga nga leeral ma ci muy euh, comité yi ngeen xamante ne def ngeen ko bu ci nekk ak la nga xamante ne moom ngeen ko sédd pour activité yi sur le le mm-hmm. terrain mm-hmm. wax nga religion wax nga communication wax nga ainsi de suite mm-hmm. euh, ndax dafay laaj loolu noonu liggéey bi ngeen accentuer ko si zone yi nga xamante yooyu la ñu nemmeeku ne moo ëpp cas mhm. wala euh, da ngeen di wax rek étudiant yëpp peu importe foo mënta rek ñu insister rek ci sensibilisation bi lu ñu am ja ñaari niveau yi la y un niveau euh, euh, macro on va dire bu bu bu général boo xam ni étudiants yëpp dañuy def le travail de sensibilisation. Mm. loolu ñoom ñëpp ils vont avoir les les mêmes formations euh, wax nit ñi lan mooy geste barrière yeeg li li ñu leen war sant. Mm. mais nag question bi nga posé lu am solo la gis nga tey tey tey jii nii euh, zone Dakar mooy zone bi nga xam ne léegi mooy cluster bi. fi la fi la fi la fi la feebar bi ëppee. Mm. te ci Dakar xam ñu am na par exemple ñett wala ñeenti zone en particulier yoo xam ni foog ñu liggéey fa balaa affaire bi di di di gën am solo parce que foofu contamination de type communautaire la. Mm-hmm. boobu mooy bi gën a gaaw te te boo deful nànk rek doo maîtriser contact yeeg yu mel noonu. donc ñetti zone yooyu noonu en particulier dañu bëgg euh, def fa benn liggéey bu am solo teel a teel a identifier ya fa nekk teel leen wax ban genre liggéey te mm-hmm. bokk na ci liggéey bi identifier leader. ak ak ak ak euh, leader communautaire yi nekk foofu noonu muy muy imam muy gérant euh, ku amee ASC wala association. wala ndeyu ndeyu ndeyu euh, gox yeeg ndeyu daara yi pour ñu ñu ñu jafandu ci ñoom aussi pour gën liggéey donc ñaari niveau la toujours liggéey sur le Sénégal mais accentuer en particulier suñu effort ci zone yi donc moo tax nag ñuy liggéey ak COUS tout le temps mm-hmm. COUS bu ñu nee fii ak fii moom bëgg nañu ngeen gën fi accentuer prévention bi rek dañuy gën a wax étudiants yi ñu ñu sóobuwaat bu baax ci liggéey bi foofu. nee nga liggéey bi euh, commencé na ndax day wane ni loolu bu ko defee suba wala euh, tey tey mm-hmm. ci Dakar ngeen di njëkkee. def euh, action yi nga xamante ne prévoir ngeen ko ci euh, plateforme waaw Dakar moom mooy suñu priorité absolument Dakar Dakar suñu priorité la zone frontalière yi suñu priorité la parce que xam nga ni à part Dakar nga xam ne boo fi génn mën nañ la jàpp mën nañ la bloqué wala Ndar nga xam ne bunt yi xaw na xat zone frontalière yi boo jëmee ay zone u Kédougou yu mel noonu euh, frontière bi ak Guinée euh, wala wala nga dem zone u nga xam ni frontière la fois ak Gambie la frontière ak Guinée Bissau mhm. wala même dans le nord ak frontière ak Mauritanie il faut que ñu liggéey fa ak frontière bu malienne ak yu que euh, léegi barrage yi ñu def naan naan naan kii transport euh, interurbain bi dafay wàññeeku ak yu mel mm-hmm. noonu loolu il c'est des zones qui sont extrêmement sensibles parce que nit mën na dugg en dépit de de l'interdiction wala yu mel noonu donc ça c'est des zones donc en fait au jour le jour ñun ñun euh, communiqué ministère bi ça nous intéresse beaucoup parce que ñun dinañ ci am derrière des informations plus précises ci bii kaay fan la jóge duñ ko mën wax nii parce que xam dañuy bañ stigmatisation bi ñun liggéey ci noonu mais am ay zones yoo xam ne xam nañu naturellement c'est des zones qui sont sensibles donc foofu tey bu ngeen euh, amee objectif bi nga xamante ne moom ngeen moom ngeen di euh, nemmeeku naam euh, défilé boo xamante ne peut-être attendre ngeen ko te nekk na loo xamante ne dina leen dina leen neex mais ndax tamit def lu mel nii du baax ngeen yaatal ci képp koo xamante ne ni tey am na yéene. Mhm. ñëw jàpp ci liggéey bi rien que pour pour jàppaleen nga bañ a nekk étudiant mais mun nga nekk acteur la société civile wala nga nekk une personne boo xamante ne am nga yéene ñëw jàpp ci liggéey. absolument xam nga léegi maa ngi doon wax naan université ñetti pàcc la am na aussi les PATS euh, personnel administratif technique euh, et de service te ñooñu ñi ci bëpp sax ay jeunes lañu euh, donc l'idée mooy mooy créer au-delà de sax société civile bi ngay bi ngay wax nii ak parti yi may wax nii créer sax beneen rubrique alumni parce que université du ñu fa nekk tey kese université ñun ñëpp moo ñu formé donc ñun ñëpp ñi ci ëpp en tout cas ñi fa jaar ñëpp ay doomu université la te ba fa xasee ba dugg moom moo day nekk sa héritage mhm. donc alumni yi ñi ci alhamdulilah teg ci ñu ci ëpp tekki nañu ñi ngi liggéey mën nañu am sax beneen xeetu aide bu ñuy apporter au-delà de la prévention donc loolu yëpp c'est vraiment des possibilités de de de partenariat yu ñu bëgg def ak yu ñu bëggee ubbee euh, plateforme bi. merci beaucoup professeur Mampenda Ba nekk jàngalekat euh, Université Gaston Berger bu Saint-Louis elle est également la coordonnatrice de l'initiative 100 euh, 000 étudiants contre le Covid 19 ñu dem seetaani xibaar yi buñ ci noppee jàll ci ñaareelu pàcc bi.